daal liggéey bi de moom wax dëgg yàlla ñu ngi ci yàgg nañ ci nag ndax mën naa ne ba Touba ci kanam tàmbalee ba léegi ñu ngi ci liggéeyab sociale bi nag moom bi mu tàmbalee ba tey moom it ñu ngi ci wax dëgg yàlla bokk kook bokki taalibe yi ne ci ginnaaw raay soxna Mbène Saw ak soxna Kolle Ndiaye ak soxna yaat bi tey mais ak ñu nekk nag suñ ginnaaw ñëpp waaw ndax nag ñun ñooñu wax dëgg yàlla dañ dañ ñoo jiitu waaye ñi ci suñ ginnaaw moom ñoo ñu may doole waaw wax dëgg ñoo waa koñ bi ñëpp daal ñoo ko bokk. niñ koy jox de socialu tuubaa ci kanam bi la euh, sëñ Mourtala jiite ko moom sëñ du fataa Mbàkke ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ak soxna Ndey Jóob jànnatu ak ñoom ñi ñu bokk liggéey bi ñëpp euh, ñu koy laaj ni fii nag ci koñ bi wax dëgg laaj bi nag amuñ ci benn jafe-jafe ndax nit ñi moom sawar nañ ci laaj bi sawar nañ ci joxe bi. moom saa yuñ laajee amut kenn koo ci xam ne kii danañ dem sa kër di ko jëli ñoo koy indi seen bopp ñii ñoo koy takk jox seeni doom ñu indi ñu defar ko nag ba mu jekk wax dëgg yére yu ci ay ndax yére yi moom benn boo xam ne bii bu eh, xam ne nit mënu koo waaje la nekku ci waaw yére yu baax rek nag lañ indi wax dëgg yàlla am na ci yoo xam ne seeni borom jëfandikoo nañ ko waaye yàggut yii fóot nañ ko benn yoon yii fóotuñu ko am na ci yoo xam ne ñawuñ ko mu ngi nii di tege am na ci yoo xam ne maa ko ñawlu ay daraba ngi ci ay dàlla ngi ci poset a ngi ci saaga ngi ci ay takkaay ngi ci ma nga ne lépp a ngi ci yére yi jigéen nañ ci yii daanaka li tàmbalee ci fanweeri at ak juróom ba ci ñaar fukki at juróom yële li tàmbalee ci juróom benn fukki at ba ci ñeent fukki at mën nañ koo sol lii yërey góor la lii yërey xale la li tàmbalee ci benn at ba ci fukki at ak juróom benn moom lañ ber fii lee ay darab la yemul ci tabaski gi rek ndax sëñ Mourtala moom ko jiitee ak ñim àndat ci góor yàlla yi ak soxna Ndey Jóob moom it ak ñim àndat ci soxna Yaay Faal yi liggéey bi dañ koy wéyal ndax liggéey bi moom yemul ci socialu yére yi rek ndax ñi feebar dañ leen di dimbali ñi amul dëkkuwaay dañ leen di dimbali moom saa yu weer dee lu waay am sa suñu kenn waaye lu waay am ci social bi da koy joxe ci social bi moom xay bu ñu dara boo joxee téeméer baax na boo amee junni baax na boo amee lu ko baax na dëgg suñ leen wooyee ne leen liggéey bi noppi na ñoom ñooy taal seen oto ñëw jël si ko filmer ko ba pare jël ko doog koo jël yóbbu ko ñoom nag ñoo koy wër di ko jébbal suñ mbokk yi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw ñun bu ñu leen ko jébbalee ñoom ñooy xool ña ko yeeloo ñu def ko ci seeni mbuus di leen ko yóti wax dëgg yót bu am sutura nag lañ leen koy yot ndax duñ ko yor ñuy daw di leen wër dañ koy def ci seeni mbuus defar ko ba mu baax ndax ñun ñi yi ñu yor dañ koo defar ba mu baax ndax ku fi indi loo xam ne lii sax yére bu xaw a yemamaay la wala boo xam ne nit mënu koo waaje duñ ko pakkete waaw yére ñu pakete bu ne rek ku ko sol foo ko bëgg yóbbu mën nga faa yóbbu waaw ñoom nag lañ koy jébbal ñoom ñoo koy yóbbu ñoom. waaw ñuy ñaax nag ñëpp nag ñu jàpp ci ndax dimbalante dafa baax. ndax doomu aadama ju ne war ngaa mën a dimbali sa moroom koo tane na nga ko dimbali ndax àddina bu doxee noonu rek day daal di yomb ñu ci sant nag suñu kilifa yooyu nga xam ne ñoom lañ ànd di liggéey liggéey bi wax dëgg yéen it nag ñu leen di sant bu baax a baax ndax lii ngeen di def lu yombal liggéey bi lay doon ndax ñun suñu liggéey bi dafa yëmut ci lii ndax fi ne ñun cere sañ Saaliw yi ñoo ngi ci màggal yi bu ci jóg ñoo ngi ci mu ngi ci kasu rajab dañuy yor daayira soxna Aminta Mbàkke mi dañ koy màggalal at mu jot poroxaan ji bu dikkee dañ ci def moom it liggéeyu am solo at mu jot mbàggalu mbàgg xewar gi noonu ñun suñ liggéey mu yemut ci lii ñun daal njëfandikaayu sëriñ Touba lañ ci liggéey sëriñ Touba rek la la ne dox waaw sa luñ jógee ci lii ñoo ndax barki dem lañ jógee ci Daaru Salaam ji yóbbu nañ fa cere yu bari ak café ay yu ñuy xewloo ñun daal liggéey sëriñ Touba rek la ñuy def moom la ñu ñor ndox dëgg yàlla te ci lañ nekk waaw ñu leen di sant nag yéen di ñaan nag seen rajo bi ak seen site bi fu ngeen bëgg mu yegg yàlla na fa yàlla yeggali ci barke sëñ Fallou waaw sant nañ leen bu baax a baax ndax lii nag dana yombal liggéey bi lool waaw ñuy ñaax nag suñ mbokki taalibe yépp di ñaan képp koo xam ne daawu ci dugg sa loxo nga jéem ca dugg sa loxo Touba ci kanam ji koo xam ne daawu ak carte weer ñaar téeméer yomb na weer bu dee nga jël wenn ñaar téeméer boo ko xoolee bëccëg du sax juróom te bi seen nga ñàkk loo xam ne kenn xamul nu mu toll te duggut fenn te lii nag laaj loo mën la di ko def foo xam ndax fu ñu ko def danañ la woon fi mu dugg kon lii kenn ku ne ku di jullit rek war nga ko ci yem du murit du tiijaan du xaadir du laayen ñëpp a ko bokk ku julli rek ci nga ñu leen di ñaanal fu ngeen bëgg a yegg yal na leen fa yàlla yeggale ci barke sëñ Fallou waaw soxna si moom li mu wax jëruñu ci teg dara ndax lii ku ñëw ba gis ko ah yaakaar naa ne boo xoolee di nga xam ñii naka la ñu liggéey xam naa bu ñu ne Mbàkke moom gannaaw raay mënuñoo génn ci liggéey Serigne Touba ñu nag social bi dañ cee yàgg ndax nit lu muy def ba def ko lu mat fan fanweeri at ma nga cey bëgg a yàgg te ñun ñu ngi ci woon ci social di dimbale ñi feebar ndax dañoo yor ay mbootaay ay natt wante nag dañoo yoru natt boo xam ne ñun da ngay tegg rek dem lekk sa xaalis déedéet da nga tegg sax dem lekk sa xaalis waaye li ñu fiy def dañ ciy def ay barkeelu waale ci biir barkeelu yooyu moom la ñuy dajale di ci génn di ci dimbale ñi feebar. di ci def ay addi Serigne Touba ak borom saam di ci addi yàlla mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax barki démb rek ci Daaru Salaam di fii tey nañ fi cere yu baree bari defar fi café yu bari boole kook alal yóbbu ko Daaru Salaam Mbàkke xewar feneen ak feneen fépp daal la ñuy liggéey ñun daal ñu ngi nii rek alali Serigne Touba lañ daal te wax dëgg yàlla ànd koog mbooloo mu nangoo liggéey Serigne Touba nag ndax ñun nag boo ñuy xool ni dañ koo jiite rek wante daanaka duñ ci dara mbooloo mi rek ñooy ñooy liggéey gis nga ko nii. temps bu ñu xëyee ñëw fi mbooloo fi tase ñu paqueté kenn ku ne booy ñëw yaa ngi yenu ëmb boo xam ne ña nga dëkkale la ko jox wala sa njaboot nga indaale ko ndax doonu ne ñëpp la seen loxo jot seen ginnaaw xaj na ñun bu suñ loxo jotee suñ gannaaw ñu mën a am lu ñuy solo ak lu ñu solo suñ njaboot tamit am na ñoo xam ne tumuraanke nañ lii loolu nag bu ñu ko waxee ñu commencé ko ba léegi mu at mu jot day teg jéego ca kanam liggéey Serigne Touba su fekkee dëggu na moom jéego yi ca kanam la jëm rek wante amul tànk gannaaw loolu rek mooy liggéey bi di sant nag soxna ñaaw mi ñu ko bokkal ndax moom mënoon ne Mbàkke laa sant sama waajur moo doon root ak Serigne Touba ndax waajur ma nekkoon njaarim sëñ Seydou moom ku ne dégg na ko Serigne Touba waaye dafa wàcce boppam nag ba ñun ñii sax ñoo ko ëpp uh, daal daraja day mel ni mbir yi ñoo ko cëpp daraja day wàcce boppam toujours ba nekk ci suuf ñun ñu nekk ci kaw kon nag dañ ko ñaanal moom itamit mu yàgg fi mu yàgg fi yàgg ànd liggéey Serigne Touba sant nañ leen bu baax nag di ñaan lii ngeen def bu déwénee ba ngeen fi dellu siwaat yàlla na ngeen yëg ci seen bopp yokkute gu wér yàlla na ngeen yokkute wér ci barki sëñ Touba di ñaanal suñ doom ji nga xam ne moo la bindi Cheikh Baari mii nga xam ne moom borom baari lañ ko tudde njabootu Serigne Touba ci moom ci lañ bokk dama koy ñaanal moom itamit dafa sant nag waaye xale bu baax la yàlla na ko yàlla fay yàlla na dund ba li mu bëgg lépp mu am ko teral yaayam jërëjëf jërëjëf